mbokk jullit ni lii di saxal ak maadute ci kaw suuf lii di ab justice bu tëdd njaaxaandaay ci kaw suuf fonkal doomi aadama yi seeni ak ak seeni yelleef loolu mooy yoon wi gën a gaaw ngir suuxat naataange ngir indi ab dal ci li nga xam ne mooy ab société bokk na ci li gën a mën a jaxaseb société mooy justice bu tëddewul ñaaxaanaay mbokk yi tooñ day tax suñu borom tabaaraka wa taala am réew tooñ day tax yàlla dindi barke cim réew mbokk yi tooñ day indi ak dund gu metti day indi pauvreté ci kiy tooñ ak ñi toog croiser seen te seeni loxo di seetaan tooñkat bi di tooñ te jóguñu téye ay loxoom yonent bi alayhi salaatu salaam nee na dimbalil sa mbokkum jullit buñ ko tooñee ak bu tooñee ñu ne ko waaw ñun day bu ñu tooñee suñu mbokkum jullit moom xam na ni koy dimbalee mooy dañuy taxaw ci wetam xeexle ko ba mu jotaat ay àqam ak yelleefam waaye li ñu xamul nag mooy moom bu tooñee nun koy dimbalee mu ne dangeen di téye ca loxoom ne ko sëñ bi bàyyil tooñ li ngay def jaaduwul kon ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñu am kàttanu téye ci loxo ñuy tooñ moo xam seeni kàddu wala ci seeni kilifté wala lu mën a doon nanu dimbali daal di génn téye ci loxo kiy tooñ te wax ak moom borom bi tabaaraka wa taala na ab dëkk nga nale boo xam ne man yàlla dama leen a alagoon ba ñu tooñee waaye nag joxoon naa leen ab bit balaa ma leen di alag mooy avertiroon naa leen dëkk yi mësa toñ yëpp ci histoire borom bi dafa wàcc mbugal ci kaw alak leen te Sénégal amul lenn lu ko mën a muccal ci loolee bu fekkee wuñ ci yoon wi jaar yal na yàlla sàmmuñu benn borom xam-xam dane inna allaha yuqimu ad yuqimu dawlata al aadila wa in kaanat kaafira wala yuqimu alzalima wa in kaanat muslima muy wax joo xam réalité la benn boroom xam-xam dane yàlla dana samp am réew économiquement def taraanga ci réew moomee def fa jàmm waa réew ma di dund ay taraanga yu dul jeex bu fekkee réew mu tegu ci justice la réew moo xam ne respectal na nit ñi seen àq ak seen yelleef donte waa réew ma ay yéefar la dégg wax ji nee na borom bi dana téyal boppam réew moo xam ne maandu moo fa ne justice bu tëdd ñaaxaanaay moo fa ne réew moo xam ne fonkal nañ doomi aadama yi seen i ak ak seen yelleef nee na yàlla dana sotti naataange ak xéewal ak jàmm ak sécurité ci réew mooma donte waa réew ma ay yéefar lan mu ne nag yàlla dana mabb yàlla dana toroxal yàlla dana alak réew moo xam ne dañuy tooñante danuy jaayante doole ñi ëpp doole dañuy dóor dëkk toroxal ñi amut doole mu ne réew moomee borom bi dana leen toroxal rocc fa ay xéewal ak barke donte réew moo ña fa nekk dañ naan laa ilaha illa allah muhammad rasulullah mbokk yi loolu jarul xool fu sori rek ngir nga xam ko suñ réew mii di Sénégal alhamdulilahi rabbil alamin li ëpp ci réew mi ay julit lañ waaye réew mii di réew tubaab yi muy France li ëpp ci réew ma ay yéefar lan suñu situation ñoom ak suñu situation ñun ñi bu bu gën a jaar yoon bu gën a jaar yoon Amérique la fa ëpp wala boog cosaanum réew ma wala waa réew ma duñ ay jullit ñun fii ay jullit lan am ay kilifa diine di jàng alquran daara yi ne xus ci dëkk bi ajjuma ju ñëpp ñëpp bàyyi seeni soxla te seeni atelier ñëw si jumaa di julli ñu nag ñoom ku gën a baax situation secret baa ngi nii mooy ñoom dañoo gën a fonk respecté ak ak yelleefu doomu aadama ñoom seeni njiit boko comparer ak suñu njit da ngay rus da nga am kersa da nga am kersa da ngay rus ci rew yooyu ngay gis ko xamne day nek président ba op ministre ba mandam di dugg ci transport en commun yi du am sax auto bu ndawal dawal ñun suñu rew yi ngay gis ko xamne bala muy fallu bala muy egg ci pouvoir bi ap locataire la don, don lu retan lu waye bu fallo ñaari at buñ ko waccé ay waxuma la ben, wala ñaari auto manam caatam bi sax day dawal oto moom moo xuma la moom ak ay doom waaye caat bi ki mujjee judd ci kër gi moom da yor oto mbokk yi réew yooyu boo fa demee boo feebaree yow mi nga xam ne dëkkoo ci réew ma nañ fa duggee jaaduwul amoo ay kayit nga feebar dañ lay toppatoo ba nga yaakaar ne ñi dañ laa ragal waaye suñ réew yi nga xam ne fi nga juddoo yor sant réew mi amoo leneen lu dul réew mi xoolal demal ci bërëbu fajukaay yi nga xool réew yi gën a mën a salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama yi ci continent bi yépp ci ci ci ci ci ci adduna bi mooy continent Afrique ñi gën a mën a réere ñi gën a réere ak ak yelleefu doomu aadama mooy continent Afrique rawatina Afrique noire li may wax du ay mbir xam ne laaj na nga sori nga nga jàng lu bari ngir xam ko boo tukkee dox tuuti dem ci réew yi danga koy xam dama ne adduna bi boo ko dajalee ñi gën a mën a salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama ñi nga xam ne seen i njiit dañ leen di jaay doole di leen noggatu boo jëlee compte cinq continent yëpp Afrique moo jiitu ci loolu boo duggee biir Afrique tamit Afrique noire bi mooy nit ñi ñuul ñooy jël pee ci loolu